mentalité prêt pour l'indépendance du Sénégal et de la refondation nationale. Peuple d'Afrique, prêt pour l'unité fédérale et révolutionnaire des États d'Afrique. mbokk yi tey Ousmane Dramé mooy ci émission bi waxtaanee li ñuy jëm ci coow li nga xam ne moo nekk Sénégal ak kàddu yi nga xam ne moom la wala banque mondiale jiital di ko wax mu jëm ci ay taux de croissance pour nelawal askan wi waaye nag ndokk ba nga xamee ne yàlla dogal na ay boroomi xel kat ñu ne ci réew moomu waaye bu kàddu jiitee bu accès rek nga xam ne koy gàttandoo lépp dara du ci dëkk. taux de croissance yi joxe dañ koo joxe rek bu defal Macky Sall politique am waaye dara du ci dëkk kon nag dañuy lànk dañoo bañ Cheikh Touré ne quand le refuse di non. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah man la Ousmane Dramé ah seen mbokk ah nekk fii ci New York ah bëgg a waxtaan ak yéen tey jëmee ko rek ci mbiru lii banque mondiale wala di wax ay di ko siiwal ci réew ma di ko propagande Macky Sall mu jëm ci mbiru taux de croissance les taux de croissance dafa nekk loo xam ne daanaka bi mu xew ba tey banque yi dañ ko utiliser pour di seet na ñuy defee business ak yeneen réew yi bu ñu wax réew yi nag réew yu mag yi nga xam ne li nga am organisé nañ am structure administrative boo xam ne bu jaar yoon la am benn GPS bu ne ci état bi nga xam ne fu bëgg a jëm xam fu jëm xool ko réew yi mel noonu ñaare ñoom lañ ko jagleel mais comme ay état souverain lañ. la banque mondiale aussi da koy jéem a utiliser pour les pays africains di bëgg wax si jëm ci ay taux de croissance te di ko banque mondiale yi defee dafa dëgguwul dafa dëgguwul te ñun Afrique war nañoo xam ne banque mondiale de référence banque mondiale banque la boo xam ne ay téléphone ki ñoo fa nekk seen liggéey mooy rek utal yeneen réew yi xaalis ni dañ leen di jàppale seen i koom-koom ba pare dañ leen dicté na nga xam ne noonu la ñu war a gouverner loolu mooy liggéey banque mondiale bu tàgg nag yaa ngi fay ak noo mën a fay bu askan wi doon dee sax daañu ne yow jàmbaar nga ndax yaa ngi fay booy fay normalité say producteurs yi xam ne waaye dëkk bi jublu ñu jotee ci ay ay coow bu sew mi ngi am ak yu mel noonu da ngay banque mondiale dina jàppale ci ay taux de croissance naan la évaluer nga ak avancé nga ak nangam loolu kenn moo ko indi mais les taux de croissance en Afrique c' est pas possible y' a aucun expert financier wala comptable wala mu ngaa taxaw di déterminer les taux de croissance d'un État africain loolu mënta ne prenons exemple sur le Sénégal d'aujourd'hui Sénégal tey comme barki démb bu banque mondiale ñu ngi wax ay fleur Macky Sall parce que Macky nombre politique bi mu leen bi bi bi mu leen sant ñu ko def Macky mi ngi jéem di dugal dara léegi il s'en fout du peuple sénégalais seen yoon nekkul ci ba ci ci ci waa Sénégal la si nii yi demee da ngeen xool leen ñu demee am xel bu fekkente ne réew mi fraude fiscale bi toll na foo xam ne ëpp na doyoo benn ñu xool réew mi les fausses déclarations yi nga xam ne mooy am ci douane bi maanaam nga jëlee bateau fer ca àll ba dugal ko ci réew mi boo ñëwee commune ak douane yi déclaré ne bateau soble la bateau soble boobu statistique da nga yàq sa ci soble si lu bari da nga yàq ci fer yu lu bari naka lu dugg te jaarul yoon am na ñoo xam ne leen ba tey suukar la ñuy indi déclaré ne laurier moo ci ne wala ñu déclaré ne soble ca ne xam nga boobu batu moom dugg na waaye ni mu jaaree jaarul yoon kooku amul benn banquier wala benn expert comptable bu ca mën dara bon ñu ci def da ngay xool les caisses noires caisses noires yi président yi yor ak ministre yi jëli milliard def ko sa rondal koy jaay xamuñu ay sumoot lañ xamuñu ay travail lañ ndax kenn déclaré wu leen fenn ah bon boo jógee ci loolu nga xool géej gi dañ ci napp ci ay jën ak li nga xam ne moom dañuy sàcc di ko génn di dem ak moom département bi nga xam ne moom du jural Sénégal loola amul benn banque mondiale bu ci mën a xalaat ba génn station war war na ko mën a joxe bu dëppoo ak li am loolu mënta ne Sénégal jamono yi fukki at yi booy mën a faux billet yi ñuy lëmbe ci réew mi faux billet yi am nañ milliardaires yoo xam ne ñi ngi foofu Albanie te al al Allemagne di tëdd ci kër yu baax xaar gi ñor yëwut buñ ko sàccewul ci état bi buñ ko sàcc ci faux billet yi wala ñu sàcc ko ci drogue bi muy ay milliards yoo xam ne kenn xamul fu bi ci àdduna te même ñi dëkk ci kër yooyu boo demoon trésor tey xool ko duñ fay leen ko faf donc kooku su banque mondiale taxay dee di taux de croissance dañ xaw a doy waar ñu jël ci wàllu mbay mi quatre vingt pour cent baykat yi seeni jiw ñoo koy lijjanti seen bopp liñ ji itam ñoo ko tànnal seen bopp bu noppee nii la ñuy def lii dañ koy def ci local market bi jënd ci ak jur lii ñu jënd ci ak li ñu ko am xaajee seen pour la des jël ko seen i sàq pour dund loolu état ba xamu ko te mënu ko calculer te banque mondiale xamu ci dara xul dëkk. waaw bu jógee ci loolu les chômeurs au Sénégal Sénégal booy moo ne ni ah li ñu def si xanu forme que des formes des chômeurs xale yi liggéeyuñu liggéeyuñu te itam fii boobu ah pour ñu mën a ko équilibré ne nangam la banque mondiale mënu ko waxul dëkk te le gouvernement du Sénégal xam nañ ko ñoom mais sax bi ngeen jox di ay évaluation moo war di tax ba dëkk duñ ko wax te suñoo xalaat ne li banque mondiale wax dëgg la waaye comme seen njariñ yi seen politique jopp ci bu delloo waxaat dëgg xool ba ci day ci douane bi ba temps yi da ngay xool rek ko am na ceeb boo xam ne Nations Unies ko moom ñoo jënd ko Mali jënd ko Mali pour jox leen ko ceeb bi mu réer ñu ko toppatoo wala ceeb ceeb bi ñu di ko jaay fan la ko fekk ñu di ko jaay ah da gis organisation xam ne ay organisation religieuse lañ li ci ay dëkk donc fa organisation lañ ah dañu commandé ay produits pharmaceutiques ah di ko dugal ci dëkk bi ah produit yi nga xam ne moo nekk kër sëñ bi ay produits pharmaceutiques ñu di ko jaay mu ëpp fuuf li nekk ci pharmacie Dakar yi te waa Dakar yi ñoom kër sëñ bi di jënd ay garab sax di ca dolli kon nga xam ne bu ñu bëggee calculer cette vie sociale bi nit ñi dundee ah natt ko ci économie finance bëgg expliquer explication dañu war a dugg ci réew mi seetaan wax dëgg taux de croissance du Sénégal amul benn expert financier wala benn expert comptable boo xam ne mën ngaa xëy ne calculer ko ba ne lii la mënta ne du dëgg boo duggee ci àll bi jur gi ak sàmm yi seeni alal état bi xamul nu mu toll ñoom it fan ko jëlee xam fan ko jëlee état bi xamu ko amul benn contrôle statistique boo xam ne war naa mën a génn ca loola ba banque mondiale di ko taxaw naan Sénégal taux bi ngi taux bi lee nañu wax dëgg waaw Macky Sall lay jàppale ci ay politique am parce que c'est un bon élève xëy na mi leen di fay ba pare di suivre politique bi nga xam ne jox na jox na jox banque mondiale jox na ko ko te ma del dellu ne xamal ne bu Sénégal yi yëpp doon faatu te Macky di suivre li ko banque mondiale di wax mu di ko def bu leen waree fay la coppati yox leen doo dégg mukk mukk mukk banque mondiale jàmbat ci leen xale yi dee ci géej gi ñaata la ay millions de personnes dee ci géej gi la banque mondiale kenn dina amul xaaj mu jàppale xale yi ah mais investissement yi yëpp investissement yu bon lay doon yoo xam ne pour ko defee foofu ñoom daañu am profit bu doy doy doy moo tax seen banque la de référence te tant que Sénégal ak Afrique yi toog banque mondiale ci torox lañ jëm waaw dafa ci torox lañ jëm la banque centrale de Paris daal moo contrôlé CFA bi nga xam ne surtout moo ne nasi ah amul benn Sénégalais ou africain boo xam ne mën nga expliquer cette situation te depuis et avant l'indépendance bi ñu continué di ko yor muy xaalis boo xam ne les collines de France en Afrique muy une monnaie illégale boo xam ne moo nekk ab di circulé boobu ba dëgg nii te jusqu'à présent la banque mondiale xam na loolu mais nu di kàddum jëm ci donc bu nu fonto Macky Sall du yàq suñu réew tey la suñu réew du ko suñu réew suñu problème jël drogue di lii associé ko ak famille am ñu sàcc alal réew mi banque mondiale ñu di caresser le chien naan taux de croissance nangam nangam war na mën a taxaw lànk loolu du dëgg du yoon du dëgg du yoon lay jàngal du la jàngal dëgg te du nangu nga dem ci sa bopp da lay baare di la ëttil yoo xam ne yu artificiel la yoo xam ne boo ca gëmee jàppoo fenn te foo dem rek la fa jëmee wala mu détourné la lii àdduna bi sa war a war a xool c'est du terrorisme c'est du terrorisme économique benn Australie ñëw Sénégal un drug dealer ah jaxasi suñu pétrole bi bëgg koo jël yóbbu moom dong mën ci am 30 pour cent tout le peuple sénégalais am 10 yoo xam ne dañ koy séddoo ak banque centrale bu Paris kooku américain yi ñoo doon jóg taxaw xeex ko comme ni ñuy xeexee terrorisme mais waruñu ko bàyyi mu porter plainte ay nit ci biir Sénégal waruñu ko bàyyi ah mu dugg ci Sénégal associé ak waa kër président bi jël alali réew mi Sénégal war naa am société nationale boo xam ne ñooy taxaw ànd ak doomu sénégalais yi. invité canadien wala ñu invité benn ami du Sénégal réew muy def loolu ñu ànd defar li ñuy def te génn ci privé bi kii sàcc la waaw daanu am problème nag te problème bi Macky Sall du ko yëg ndax Macky am naa ci lu ma wér ne bu noppee doon président da jël njabootam ñëw Amérique gi la bëgg a dëkk Macky Amérique gën a lépp pour man fii dëkk bi dafa neex yomb liggéey amul xaalis te kenn du la sonal te boobu ba ñu faj la fii moo gën a seef ci àdduna moo gën a lépp lu mën a waxul dëgg suñu réew mi nag bu ngeen xoolee gëmm ñu tey leen dañu am problème waaw ñoo ñu nekk fi ci États-Unis ak képp koo xam ne bokk ci plainte bi nañ associé dressé benn lettre yónnee ko state département jóge fa avec la su- su- justice américaine parce que ay américain lañ il faut ñu taxawuñu il faut ñu supporter ñu il faut ñu taxaw ci suñu wàll parce que mooy li jaadu dara lañ mënul Baba Aïdara parce que Baba Aïdara ak ñi ñëpp bu àndee tourné plainte bi indi ko état Amérique waa ji du fi ñëw parce que il kenn koy interdit ci dëkk bi sàcc la du fi dugg buy ñëw américain di ko teg loxo waaw yii banque mondiale bi am ñu may taux de croissance dañ ko yëf sànni ca mbalit ma te xam ne jàppuñu ci dara jàppuñu ci dara université Dakar devait prendre une responsabilité bu gën a yaatu bii ndax foofu mooy daaray kàngam ji foofu mooy la profondeur du savoir foofu la lépp nekk waaye université Dakar waruñu mën a xoolee ak a ñàkk bopp ba le gouvernement du Sénégal di tayli réew mi ngeen di xoolee du yoon comment le Sénégal peut négocier lu toll noonu ci pétrole te ak gaz te député yëguñu ko assemblée nationale yëgu ko ah opposition bi yëguñu ko université bi nelaw xamuñu lu xew ah am na ministre am sax xamuñu lu xamuñu lu xew dañoo xëy ne pétrole bi dem na loolu lu mu mën a nekkee ah dama ne Sénégal yi di jóg taxaw réew mi ñoo ko moom te moomuñu ko noonu doomu ndax fii ñetti téeméer am na yenn ñuy tudd ci la ñu bokk nan bokk Corée nañ ko suñu maam joxoon ñu delloo ko noonu xale yi nga xam ne ñoo topp tey banque mondiale bi ak ki mel ne Frank Timis ak ñeneen dañ leen sànni ci suuf am réew am réew yi liggéeyal waa liggéey ak i nit Sénégal bëgg liggéey na woo Canada Canada am réew la mu toog ak ñoom ay réew ñu toog waxtaan mu les intérêts publics ñu seen ñuy exploité pétrole bi te ñu am benn problème Abidjan kenn déggu leen kan ak yaay fa nekk ànd ak waa yi di liggéey waaw privé yi ay benn bi nit su trop di la yi nga xam ne kooku ay jàpp na li ci ba tey ay sàcc yoo xam ne dañ leen a rejeté ci réew mu dem ah Macky Sall di lëkkaloo ñu di dugal ci suñu réew mi ah ànd ko di nga ak gouvernement même gouvernement bu njëkk bu Abdoulaye Wade ay complice lañ yàlla dogal mbir mi feeñ mais toroxoon nañ waaw waaw mbir mi daal foofu la mën a yem ah maa ngi leen di gërëm di leen sant te di leen dàggi pour ngeen gën a góorgóorlu surtout nag ñu joxatal loxo ñëpp boo jóg taxaw réew mi ñoo ko moom kenn mënu koo seetloo te naxe bi yàgg na ëpp na tar na yàgg na ëpp na tar na waaw ab avion tey boo ko gaaroo ci marché ba taxaw Sandaga ni ko bëgg génn réew mi kaay une minute avion bi fees te le Sénégal est responsable Sénégal yi à l'âge de vingt deux ans rek vingt deux ans rek bu lekk ci njëlal bàyyam du neex parce que nit la koo dafa ci responsabilité yor bàyyam yor ay jarbaatam yor ay rakkam loolu la ñu xam ci li tib Sénégalais loolu mooy seen culture lu mën a nekk mukk nag tant que système bii ñu Macky Sall bii jël ñeneen jël ko dara dara doy waar Macky est né avant les indépendances ma defoon daan na ñeme tubaab ndax xamu ko ndekete woo bu ko fu fu ko tubaab bi tey mi ngi pat pat yi ñemewu tubaab loolu moo gën a indi inconvénients yi nga xam ne moo am waaw ma bëggoon a Sénégal yëpp jug taxaw pour ñu taxaw xeex lii ba mu deñ lii mu taalibe yi jaaduwuñu ni ci mbedd mi di yalwaan Sénégal bu tudd ni ci pétrole jaaduwul ak gaz moo tax tubaab yi ne ko franc teg ni ko da ngay dàq taalibe yi leen génn wàcc ci tali bi moo tax Macky Sall tàggatu mu jëlee fi mu jëlee fi taalibe yi Karim Wade temps bi ci kaw bi lépp xam nañ ne bu génnee lem wax ci mbirum pétrole bi te xam na lépp ñu nañ ko téye ba affaire bi jàll yaa ngi dégg ay mbiri mbiri ci nekk yoo xam ne laxasu mu ne su ko wax Sénégal mafia bi dafa rëy yaatu te dara ci njariñal Sénégal am na ñoo xam ne xamu luñ doon ci at taxu woon xeet lañ waaye nag ba tey mun ñu maa bett ndax Sénégal bu njëkk bi ni jàppee jaami bu ndën ni mi di xëy bu ndën ni mi dalee am na ñoo xam ne xaar ñu jàpp leen ci pénc ma nii xaar te lañ toog xaar bu diggee ñu tàkk leen yóbbu am ñoo xam ne dañ daan bëgg ba ndëgëñ ñu ngi ci biir réew mi waaw Alaaj Diouf lii mu def yàgg-yàgg day ñëw ci opposition bi nit la koo xam ne loolu la ko loolu la ko yàlla bindee daal Sénégal yi xale nañu Sénégal xam nañ ko waaw ca kanam tuuti dana fekk si opposition bi waaye nag nit noonu leen ko wopp daal wopp nga waaw ngir maa ngi noonu ba bëggoon nag ñu bokk góorgóorlu te ñaan jàmm ci suñu réew di ñaan jàmm yàlla def jàmm te xam naa ne yàlla mën naa indi jàmm di bettu ñëpp Sénégal moom du mas a di bu fekkee ne bokk nañ góorgóorlu joxante loxo jàppante ndax loolu lu war a mën a ne la sàcc sii nag dooni politicien ak kenn xamul ñu fexe ñu génn ci suñu biir waaw génn ci suñu biir réew mi mépp na ñoo taxaw joolente loxo benn yoon nag waa almaadi yi nekk ci biir àjjana ñun na ci biir sawara nan du taxaw boole fexe li génn ci almaadi googu ndax moomu ñu kër yi dinañ génne sànni ci àll ba ak nuñ ko mën a defee baax na ce n'est pas une guerre civile mais c'est une logique boo xam ne lu war a mën a ne àll jàmbur doo ko téye boo ko dundee ba jàkk bi yow dong na Sénégal la gépp jóg taxaw xale yi université ak ñëpp génne leen ci kër yooyu ndax moomuñu ko prêt pour la révolution des mentalités prêt pour l'indépendance du Sénégal prêt pour la refondation nationale prêt pour l'unité fédérale et révolutionnaire des États d'Afrique jaa ngeen jëf Ousmane Dramé